réew mi ay at Fatou Laobé ay at mënoo invité sa yaay fu baax fu mu dëkk say mbokk mënuñoo nekk non kii du nit kii jëru sax yaayam moom dimbali ma rek ngir yàlla nga baal yaayam mais moom loo ko def dagan na man yaay laa di ko foofu rek ndax yow yaay nga waaw mais moom loo ko def dagan na barki Serigne Babacar Si doomu xaram la waaw waaw loolu de gis nga sama caw ju gii dinaa ci xeesal lëfal ndayuy soko muy muy muy euh, xaw ma nan si nu mu tuddati yaa ji nu mu tuddati aada so roqoye si roqoye si sama caw ju gii dinaa jël sama caw ju gii xeesal dataam bi ba mu xonk cur ma da ci sotti asib maa la wax <laughs> yaa ngi toj live bi Fatou Laobé Sokone mii de bu sañoon du dugg ci yow man maa la wax loolu aw ma dara lu may ragal man du ma ragal ragaluma ko. gis ngeen sénégalais yi nag Fatou Laobé lii du jikkoom de yéen xam ngeen Sakko Laobé Fatou mu Moussa Saga kenn nii du jikkoom mais dafa sës dafa sës maanaam soko wax ju ñaaw ji koy wax di ko di ko taf di ko xas naan ko serew yeeg lu ne mu di ko ko wax ci wax ju ñaaw xanaa xamoo am na yenn yenn xas yoo xamante ni nga koy sa xas doomu aadama saaga ko ndey sax moo gën a tane. aadamo aadamo lislaam waaye a set ci àddina. yaayam moom Sonko boo ko lëmbaloon nii tey mu fanaane ji aéroport euh, Sine billaahi lu tol nii la barki Serigne Babacar sa benn mbël lëmbal poot boo ko ko dóoree ma nga jurbel du paas. ba ma jutoo ba léegi musuma am réew musuma am réew ci sama àdduna man aw ma réew duul xam nga kuy duul. xam nga soko bu xamoon ci ñun dara wala mu yor sunu vidéo wala mu gis ci dan ñun dara loo xam ne dañ koy wax kon mu génn ko ndax moom amul benn argument bu mu génne waaye man dinaa sokolaa cottu ndeyam waaye <laughs> sokolaa di jëw di jël xuuri baayam di ko dëbb bulet jël xuuri baayam di ko bulet jël sama caw juug sotti ko ci lëfal ndayam di ko wàngar ñi dugal ko ci biir géej gi si xorom gi xorom dafa ndayam jël xuuri baayam bulet ko ba mu mel ni bulet doma daax ko doma non non bu ne ma Adama yaa saytaane du saytaane man damay wax dëgg yàlla tax Fatou Law bi tooñu ko man du ma ànd man du ma ànd ak nit kuy ma ànd ak kuy tooñ Fatou Law bi mi yaayam la boo amoon lu muy wax Fatou Law te mi ngi dégganteeg doomam xanaa xamoo Fatou mi yàgg na noo wax li tax ma am numéro nii bu ma amee lu ma gis dama koy vocal woo ko mais doo looy taf du sa morom sa moroomu yaay la du koy ah. taf ci kaw naan ko ay faatu lawbe nangam di ko xas mi ngi mel ne xas nga sa yaay lu tax taful yaayam roqay si di ko xas ki yaayu jàmmoor la nday faatu magum jëmm la waaw moo ko tooñ de moo tooñ faatu lawbe man du ma ànd ak tooñ moo ko tooñ ah. waaw yaayam roqay si géeju bu dëgg ndeyam la yaayam barki yàlla yaayam de xoolal am Amadou Sy te xoolal ah, mi nga xamante ni papaam yaayam ak papay Soko foog naa ñoo bokk ndey ak baay nee na Soko de billaahi yaayam sax day génn di dem ci yeneen douze di fa day. ci ku nekk fii. bu weddee li may wax kay ne def vidéo daan ne këram a ngi nii fii la yaayam dëkk. bu ko wanee barki Serigne Babacar si dootoo ko tontoot da nga koy baal. ba pare muy jóg di la xas di la yekk lu ñaaw yow mi nga xam ne yaa ngi sa njaay di jaay say diw di am say teraanga di ci dimbali sa doom yor sa kër te leer na ma yow sa kër moo dax kër yaayu Soko donte moom mi ngi Europe mën naa la ko wax. dinaa la filmeel sama kër R plus bi ak meuble yëpp laay dugal ci cottu. loolu la loolu nag Soko da koy dégg rek. R plus 2 yooyu da koy dégg rek du ko jege sax. R plus 2 bi laay dugal da koy dégg rek tooñ baaxul tooñ du gàllaaj soo ko bàyyil tooñ Fatou Law bi du sa moroom ay doomam duñ sa morom tooñ baaxul. lu la dal yaa ko teg sa bopp ku dugg nag dinaa féq naan ko Fatou bi wuru woon a saaga ci mag wuru woon a nangam dangaa naa féq soo ko nga war a wax dëgg ne ko Fatou Law bi sa yaay du sa morom bal di toroxal ay mag kii du sa morom. yow mais yow sa xol doomu yàq tuur. waaw kay waaw dëgg naan day leer. ma jural ku mel ko dama koy rey. waaw mais naan ay waaw Fatou Laobé wërta saagaak saaga yi jékkul ci mag loolu dëgg la xam nan ko. man xam naa ne Fatou Laobé mii warut a wax lu ñaaw. Eh, eh, waaw waaw waaw waaw faa saaga yi jékku ci mag mag mu toog ñetti fan ñu di ko daggal ay saaga di ko xas man loolu ma Sénégalais dañoo seytaane am na ci ñoo xam ne dañoo seytaane duñu wax dëgg. waaw loolu moom dëgg la waaw. ku ci génn woon sa yaay. waaw woon sa yaay di ko saaga nan lay réagir. barki yàlla moom mooy génn doomam dina génn nday faatu li mu def loolu la bu ko deful woon ma bàyyi nday faatu. parce que yow amul kenn ku la waxal sa doom ju jigéen mooy nday faatu nday rafetul nag ñuy taf yaayam magum jëmm di ko xas nday faatu toog kon ma xam ne nday faatu mi wérul. dama ni Fatou Laobé de moom jógewul fu baax. man de awuma yaay xanaa xamoo ne mbelentaan taanay baayam. moo la tooñ caanay baayam ah, moo la tooñ koo gis ci kaw àddina am na famille am na fu mu bokk am na fu mu jógi dama ni mbelentaan sax daa am famille te taanay baayam loolu waxu seytaane la gis nga yar en tout cas daal damaa laa bëgg xamal benn affaire yaraax tefes gi nga xamante si nii fa la so ko dëkk barki Serigne Babacar si kenn respecté wul yaayam fu mu génn yaay ji dañ koy xas ak a wax lu ñaaw parce que ni doomam nekkee ci internet bi billaahi wallaahi wa taala yow ku sa ndey liggéey di nga waaw ku sa ndey liggéey di nga di nga nekkee nii nga nekkee nekk di wër nan ngay amee doom mu ñëw Barcelone Barcelone gii nga xam ne ñëpp a ngi defe pour ñëw fi mu war a liggéey dimbali la topp mbalit yi dèjà nga xam ne su ko dafa eh, dof nekkul ci biir Barcelone de nekkul ci biir Barcelone non fi Barcelone sax dañ koy wër waa Barcelone dañ koy wër mënuñu ko teg bët barki Serigne Babacar adresse Barcelone laa dinaa ko joxe adresse Barcelone fu mu dëkk liggéeyee dinaa joxe adresse boobu ci sama laay dëgg la ku bëgg a xam fi barki yàlla soko soko day rus loo sax ñu jaar ci gaal barki Serigne Babacar si am na booy yu ma xam ñu jaar ci gaal yi ay cartel yi ma ñàkk sama ndey boo leen fekkee li nu yor ci xaalis buñ foto woon seen kër Gambie fa nu nekk barki yàlla nga te si soko leen jiitu ci réew mi foofu dama ni ñooñu ñu am jom lañu jaar nañ ci man ne jaar ci gaal yi taxul a bon aadama. moom rek moom moom moom nga ciy gis ab dof boo xam ne. ba nga jaaree ci gaal yi ñu te doog ba dugg ci réew mi doon jàmbaari fàkk tëdd dañoo am jom taxawu seen ndey la leen sax la leen yóbbu woon Europe ñu nekk sax ku jaar ci gaal yi ba yàlla indi la biir Europe gii nga nekk Barcelone nañ waxante dëgg dangaa ñëw ngir dimbale sa ndey dimbale sa baay taxawu doon sa gaynde ndey doon sa gaynde baay tabaxal sa yaay kër jënd oto jox ko teral ko. xale góor yi jaay ci gaal gi dañoo am jom ndax li leen taxoon a jóg mooy taral seen waajur. waaye yow amoo looy fayee sa yaay lu dul ay saagay ndey bu Fatou Law ba ñëwee wulli ndeyam ba mu nooy bàyyi jox keneen keneen tepp Fatou Law bi bu jógee jox ngañ ngañ teppi ngañ jox Amar di saaga ndeyam ba sa yaay fi mu toll nii kenn xamul lu muy nuróol yaay soo ko boo gisee da nga koy yërëm Fatou Law bi loolu lépp yaa ko teg sa yaay. waaw. Fatou Law ba mii boo dugguloon ci man saaga yu ñaaw yi doo ko dégg ndax Fatou Law bi tooñu la. nit damay faral kuy tooñ Fatou Laobé defu ko dara vidéo mu la def di bi askan bi di waxtaan yoram ne wuja mu jóg rek affiché Fatou Laobé defu ko dara nii la fi defoon Ama Baldé Ama Baldé defu ko dara mu jox ko lu ñaaw booy ñaaw papay papam mënoo laa jaxaseeg waali ndax waale sa xamu ko waale xamu ko famille waali ñu ko ramdaan xamuñu ko kenn xamu ko si ñoom kenn Mariama Maysa bi ga sama doom la barki démb laa def guddi mu yónnee ma un million. da dalaa munta Fatou Laobé dalaa jaxaseeg moom parce que moom waali xamu ko jaaga xamu ko ramdaan xamuñu ko kenn xamu ko moom rek mooy wax di wax waali kenn xamu ko ci ñoom kenn du kenn ku ko xam kon mënu laa jaxaseeg moom waaw defoo ko dara moo la tooñ moo la tooñ de te lii ku ko dégg dina ko bàyyi waaw euh, nañ wax dëgg rek doo moroomam waaw moo ma tooñ ba si kanamu yàlla. waaw ah. moo ma tooñ de moo la tooñ de. moo ma fekk ma toog mu la tooñ de moo la ko yóbbantewu ma ko nuyoo du ma sax xool yëfi sa ko man sa ko du daraam. billaahi wallaahi wa taala. man du ma xool nee naa ko soko mu ne ma ah ma ko soko xaw def sénégalais yi mais billaahi wallaahi wa taala yi sénégalais yi ñu bëri bëgguñu la. man damay defal ni vidéo sax du yoo mu ne ma yow de loo bon bon sax boo defee vidéo man dinaa la tontu wax ci yow waaye kële de gis naa ko mu defal ma vidéo billaahi mu ne ma kii ñii du ma wax ak ñoom barki Serigne Babacar Sy ah? xaw ma lu ndax day xas ay sénégalais di wax lu ñaaw di xas réew ngoy faal xool li li mu li mu wax papay booy ñaa moo gën a bon dégol te dégol defu ko dara laa ilaha illallah muhammad wax na fi déggoon ay wax yu ñaaw yoo xam ne boo ko déggoon tey jii da nga da nga naan kii du kii du nit. xam nga ni bis boo xam nga ni bis boo wax na fi papa yi lu ñaaw wax fi Awa Balde lu ñaaw ñooñu ñëpp defuñu ko dara Ngoy Fall mu wax ko ay kàddu yu ñaaw kenn defu ko dara ci ñooñu. kenn tooñu ko. xoolal lii xoolal lii léegi xoolal lii léegi léegi pour lan la. gis nga li mu waxoon papa yi papa yi déggoon fa laa ko meree woon ba tey li mu waxoon papa yi booy ñaa wax ko loo xamante si nii gis nga Fatou bi boo ko déggoon ah, barki Serigne Babacar Sy wax joo xam ne man rus naa see jaaraat. ah déet ëpp naa jaar. lu ñaaw la wax papay booy ñaa doomu xaraam la ah, soo ko doomu xaraam kenn defu ko dara ñoo ñëpp kenn tooñu ko tey mu ngi ñëw ci yow moo la tooñ. loo loo ko saaga man moo la tooñ. waaw man de lëfal ndeyam rek lay dajji. <laughs> toj cottu ndeyam rek. wal xuuri baayam dugal ko ci. juróom-ñaari cokku ndeyam rek laay jël di ko di ko di ko caw juug sama caw juug yi rek ma xeesal lëfu ndeyam léegi man ma lëfal ndeyam xees pecc waaw pecc loolu laay def waaw lan la jotee booy ñaa ba di ko saaga. barki Serigne Babacar Sy li mu wax papam naa xoolal naa jéem a wër bi yónnee la ko boo ko dégloo da ngay sax li la wax loolaa gën a ñaaw di. laa ilaha illallah nga ne la. mais billahi nee na papa yi booy ñaaxoo ma day dem fële da day day laal ay waay yow loolu kay gëma cee jaaraat. vidéo la ko def nag. Oh. adduna bi yëpp daj ci seen bët. loolu yàlla bu ma ko dégg. oh loolu de yàlla bu ma ko dégg aada. loolu kay yàlla bu boo ko dégloo da ngay fàtte sax xasim la xas. laa ilaha illallah. waaye man mënu maa xas man juddu réew. foofa la ko booy yu pikin yi commencé di bind. boo yu bari meral ko moo tax génnul ñu bari di ko wër ci dëkk bi. xanaa xam moom na ñoo xam ne ba tey loolu lañ ko meree xam nga lu tax man mënumaa xas aada waaw kaay ma wax la sama parcours man mënumaa xas man sama nekk rek sama nday yërëm sama nday yërëm sama baay ba jébbal leen seen borom mhm. di leen ñaanal di leen sarxal ba suñu jonn yàlla tey am sama ngërëm waaw kay ma ma ñëw ma ñëw bala ngaa continuer fii la fi xas barki dem mooy ba mu a taf di wax ci yow Viviane la taf sama yaay ji jàpp Viviane du Viviane di ko wax lu ñaaw loo xam ne mosuma koo dégg ci àdduna bi Viviane gën ndayam. moo gën ndayam foofu gën koo placé xoolal Viviane oto bi muy dawal ak ñaata million lay jar est-ce que gis nga rant bi muy dawal yow sa yaay sareet sareet sax yaayam amu ko. waxuma sax rant waaye gis nga Viviane man damay dajeeg moom man Fatou Laobé mu yóbbu mu ubbi portefeuille lu ñaaw la koy wax da koy wax wax yu ñaaw. te Viviane nit ku baax la damay damay dem Viviane ma a jaxase Viviane bàyyi nga fa loxo damay dajeeg Viviane ci ay soirée di dem ay soirée Viviane taxaw di ma may xaalis bu weex sàll barke Seexul Xadim. noonu la mel de. billahi wallahi man mii sax noonu la mel man ak ñeneen ak ñeneen barke Serigne Babacar Si. dama muy Viviane ku ko bañ jomama tax nga bañ ko nit ku baax la am na jom. le le 4 février la am bis bu rëy fële ca Paris Olympia 4 février bi ñun ñëpp dinañ ca def. defu ko dara defu ko dara. Viviane bu wootee sénégalais yëpp a koy ko wax ay wax ju ñaaw joo xamante si nii barki Serigne Babacar Sy boo ko déggoon sa yaram day daw kooku mënul wax Viviane dara te am ay doom yu mag te leer na ma ne nee naa ko nee naa ko soo ko mu ma ah ma ne ko Philippe doomu Viviane bu la téyee bu la xojee ne la dayal foo jaar day maa la ko wax kooku américaine la waaw ku katt ndeyam la man de dinaa katt ndeyam man chaque jour suma xëy dinaa katt ndeyam deux cent cinquante fois <laughs> man daa sama caw jub bii laay sotti ci lëfal ndeyam trois cent cinquante butil la dama koy naq ci cottu ndeyam di ko ci naq di ko ci naq ba mu génne ci bopp yaayam ma jël xuure baayam te tëj ko waaw man ay katt ndeyam man ku ma sa saaga rek ñëwal ma saagal na ndeyam non caw jub bi rek jóg man moom caw jug bi dina ma rey mais Fatou Law bi nag live bi yaa koy toj. caw jug baa ngi nii baa ngi nii day rocc ba mu weex tàll ma rocc cottu ndeyam xeesal ko ba mu bi nga def léegi dama doon dugg di wër sa vidéo yi ko pour digal ko gars yi ci moom laa njëkk a yem bu bees bi bi nga naan ko du tontoo dara damaa a dee. dugalal la ko. <laughs> ma wax sa tontoo man du ma sa tontoo yow man damaa bëgg a ak yow. yow dama mën a tontoo ak yow yow nu ma tontoo ak yow yow tekki woo tekki woo farkatu mbalit bi góoru caapataat sa koy bu gàtt. nii la la fi nekk booy la. nii la fi nekke tooñ ay kilifa yu leen deful dara. yow ndoxum géej maa ruus sa cokk yi ba mu wow ba mu boo jegee dem jënd say bal di ko naan def say bal di ko naan. doomi xaraamata njaaji. te mais nag naa ne sa ko du ko defati ndax live bii nii mosta am ci àdduna bi. Ah. adduna bi ba tey adduna baa ngi nii ci kaw di la seetaan lu ma 3600 4500 ah, nga eggoon yeeg yaa ngi ba bàyyi 3000. Ah, ba suba ma tepp ma ne xaaral ba suba ma tepp lëfal ndeyam dugal ci sama écran plan bi. kon de ci la ni seetaan li de sa champion ligue yi ndax final baa ngi waaj a ñëw février ma ne champion ku ci bëgg a seetaan sama écran plan dugal naa ko ci lëfal nday sa ko ko di ko seetaan. Adamo sama sama écran plat laa dugal ci dëjëw nday soko ku bëgg a seetaan champion bi dugal foofu commande baa ngi nii nga commandé ci tuttu ndeyam ñaari xuuri baayam yi laa jël teg ko ci kanam di ko commandé moom doomu yàq taat doomu yàq taat bu katt sa nday sa farasu ndey sa lëfal nday soko sa cottu ndey saa yoo yeewoo sa ndey lëfal ndeyam sa maam lëfal ndeyam sa juróom-ñaari maam seen jot bi nday non soxna Fatou. sa xuuri bàyyi. soko sa xuuri bàyyi. non mais soxna Fatou li nga wan li nga wan soko tey moom ci live bii. live bii dootu fi amati de moom dégg naa ma ngay live xaw ma coupé naam di mais xam ko seetaan parce que fii yëpp ngi fi. ba suba jàmm yàlla yàlla may fanaanum ba suba ba ma laay fal soko yàlla ñu yàlla may fanaanum jàmm ba suba. ba jël njóog yi ma laay fal day yi ngay jëlaat. dama laay far soko laay def maa ngi nii di batti maa ngi nii di batti di di produit bi <laughs> asib laay jënd asib dëggaw ndeyam moom soko